ga fikki ne ga ni rewen la ya bi ge ku doom yi ma ja ate ko mi ma ni ah, jaani yow soxna si ñu lay nuyu maa ngi lay fay tur bi naka la Nabou la na bu tey ñu ñëw nag fii nii si Cité Suprême ñoo fekk si leen fi ngeen di sargal ki nga xamante ne mooy Aliou Cissé kenn dootu ko présenté fi nga xamante mooy suñu réewum Sénégal déjà lan nga bokk ak kii di Aliou Cissé. waaw Aliou suñu dëkkandoo la papaam aussi nijaay la si ñun loolu mooy lien yi ñu boole ñu dëkk ak ñoom nag dëkk bu rafet. sa cousin la. waaw mën naa ne sama cousin la. d'accord donc tey ji trophée bi nga xamante ne ci Cissé am na ko euh, jël ko ñu yàggoon topp nag si li nga xamante ne mooy ginnaaw ndam li mu ñëw andil ñu ko Sénégal yéen ñi ay tànk li nga xamante ne yéen ay jege ñaaleem déggoon lu nekk si moom euh, avant li nga xamante ne mooy trophée bi di ñëw déjà li nga xamante ne yéen ko doon dégg si ay ñaawteef naka ngeen ko doon dundee parce que ku ku ne xam ne deret dafay dafay tàng. waaw xam nga nit moom di nga dégg lu nekk di nga ko dégg ci domaine boo mun ti nekk. du sport kese muy musique muy muy jàng muy leneen nit ki di nga dégg lu nekk mais nag euh, boo déggee tamit yow da ngay am sa détermination rek xam sa objectif xam li la tax a jóg ndam nag yàlla moo koy mayee donc euh, ne woon na ren ji la coupe bi di ñëw Sénégal ren la ñëw ñëpp kontaan loolu la rek. kontaan ngeen si bu baax. kontaan nañ te yaakaar nañ ni képp kuy sénégalais aussi kontaan nga ci ndam li parce que ñëpp ko moom waaw. lay dundee ak yéen. waaw Aliou nag man euh, pour être sincère fekkantew ñu fii ci koñ bi papaam laa fi fekkantel ak famille papaam mais nag ay relation humaine la am ak nit yi jàmm ak salaama ah, loolu la sekk ak ñëpp fii waaw. boo jox conseil tey ji ban conseil lay doon. waaw de ne pas lâcher prise rek mu gën a jàpp rek gën a serrer ceinture xam ne àdduna dara yombul donc euh, li mu ñefe ba yegg si fii na gën a góorgóorlu yàlla indi yeneen ndam yu gën a neex lii ñu am tey. ñu lay jaajëfal bu kontaan ak euh, vraiment euh, fier ci euh, sénégalais en tant que sénégalaise parce que vraiment ñi doon surtout ñi nga xam dañ la woon du fi ñëw mukk ci àdduna loolu dafa nekkoon sama problème man moo tax bi mu ñëwee dama kontaan dama bëgg te xam nga ma dama ragal match man du ma seetaan football saa yu ma seetaanee dañu gagné damaa jël sama vert jaune rouge denc ko ba pare taal youtube bi dëgg seetaanu ma de xooluma ba tey xaw ma ko dugal bii bi dama doon déglu match bi dama dañ lay Sénégal gagné rek ma jël sama vert jaune taw feete ko nag wax dëgg yàlla dem ci koñoo koñ fu ne ma romb fa bégee bégee bégee xam ne rek wax dëgg yàlla yàlla nangu nañ ñaan yi ñun ñëpp kontaan nañ parce que dafa nekk loo xam ni ah, dañ ko yàgg a Sénégal yàkkamti woon nañ vraiment coupe ñëw fi Sénégal waaw conseil bi may joxe surtout Sénégal laay wax am ah, parce que Sénégal ku ne xam na ne aussi dëkku wax la macha allah wax ji dafa bari nañu bàyyi waxal nit ak ah, jiitu yàlla ak jiitu paaka ci mbaram yàlla moo yor victoire yàlla moo koy may kenn mënu ne Sénégal du am ndam tey bi mu amee ndam ñu bëri rus nañu ñi nga xam ne dañu jàppoon Aliou Cissé di ko xas di ko wax lu nekk naan war a démissionné war a démissionné da nga war a bàyyi tey ñoom tam rus nañu ñu ngi naan fi toll ni Aliou Cissé man gisuma ko waaye xam naa ne bëgg naa bàyyi mais tey sénégalais yi ñoo ko naan jàppal te ñoom ñoo ko ne woon bàyyil kon sénégalais lan lañ bëgg te coupe du monde baa ngi baa ngi ñëw ah kon sénégalais lañ leen bëgg donc mooy li may wax rek nañu ñaan nañu ñaan nañ bàyyi xasaate ak nañu bàyyi wax ju bon nañu bàyyi yàq deru nit nañu bàyyi wax dëgg yàlla dëkkal nit aussi fu mu dëkkul Aliou Cissé ñoom ku ku ubbi woon tey ji xolam bi coupe nga ci doon fekk avant avant match bi di jeex donc nañ ko en gën a encouragé aussi euh, joueurs yi ndax wax dëgg yàlla ay gaynde lañ metti woon na trop trop trop trop trop wax dëgg yàlla ñu ngi leen di félicité